ku nekk koo xamante ne jàpp nañu ne war na mën a indi euh, soppite ci li nga xam ne moom mooy doxalin bi ñu bëgg mu nekk koo xam ne dañ koy woo mu ñëw toog ñu toog ñun ñëpp ensemble waxante dëgg ci li nga xam ne moom moo jëm ci réew bu Sénégal ak situation bi fi xew xam nga je le dis encore une fois et euh, c'est comme en fait je dis que Diomaye est constant ci li nga xamante ne moom lay def boo ko xoolee premier discours bi mu def au-delà de discours bi mu def jam euh, ñaajo bi muy jël parce que bi muy bi muy prester serment dafa def la veille le 3 avril un discours discours boobu sànq laa ko doon xool mais bi ma xoolee discours bi Diomaye di euh, moom ci boppam dafa bëgg xoolaat wala defaraat lépp li nga xamante ne jàpp na ne euh, maanaam lajj na ci gouvernance bi nga xamante ne moom la ñu doon seetu ci biir réew bu Sénégal ci biir li nga xamante ne moom Diomaye bind na ko mu ne euh, il veut redorer le blason de la justice lui redonner le prix qu'elle mérite et la réconcilier avec le peuple et non duquel elle est rendue cest dire dafa bëgg encore une fois yoon ci boppam nekk yoon boo xamante ne dañ koy joxe au nom du peuple

xëy na seen seen appartenance politique ñenn ñi di ko daal di mais quoi qu'il en soit je le dis encore une fois je le répète on a une justice forte maintenant quelle qu'en soit les situations reste davantage à renforcer mais aussi à encore une fois aller pour justice boobu gën a nekk justice boo xamante ne tout un chacun ci biir réew bu Sénégal da mën a gis boppam parce que il faut oser le dire cette justice quand on dit que dañ koy rendre mën na euh, indi ay problème ci ci lu jëm ci wàllum justice j'espère qu'à l'issue de cette rencontre bi nga xamante ñu ngi koy bëgg a def euh, situation yu mel nii dootul xewati ci biir réew bu Sénégal. ñu joyanti Cheikh jamono ji ci wàllum yoon bari mais on s'attend à ce mu nekk euh, dialogue boo